gouvernement yi ñun ak ñoom a jàngandoo ëpp gënuñu ñu yeewu ñoo leen gën a sax yeewu wallahi billahi ñun ñi rappeurs boo demoon si suñuy live nga xool si suñu suñu cursus scolaire fuñ mës a jaar bu ñu jëlul pay jël deux yàlla may nañu ko malheureusement bu desee lu dul choisir c'est eux qui choisissent ñoom ñooy ñoom ñooy toog ci place yi ñoom ñooy ba pare amuñu cër buñ jox benn cër bu ñu jagleel hip hop benn cër buñ jagleel hip hop benn cër donc il faut gars yi jox cër MCs yi il faut gars jox cër MCs yi bu MCs yi dugg di dugg jeel kenn dugg fi jeel bu MCs yi di dugg jeel kenn dugg fi jeel bu Abdou Karim xurum xaax di dugg jeel kenn dugg fi jeel bu ñuy xeex ay yaana maar ñi may jam ay balu fetal gars yi ñu jàpp dugal ci kaso kenn dugg fi jeel kenn dugg fi jeel boobu gars xamuñ sax nu ñuy jeelee xamuñu sax jeel ñun bu ñu Ablaye di dugal ci jeel yi dañuy paqueté ci ci aéroport yi dañuy palpé def ñu ay taatu nen dañuy palpé di di yàq sañu fermeture sac nan day wër drogue day wër nangam di ñu di ñu dàq boobu kenn nekku fi loolu amu fi te ñun dund nañ ko te ñun dund nañ loolu lépp dund nañ ko comme si ñun on ñun dañuy dind mu ñu daan ay éternel bañkat dañu war toog rek di kaas rek di kaas rek ku ñëw ñu kaas donc bu desee lu dul ay choisir ñoom ñooy choisir ñoom ñooy jël ñoom ñooy toog ñoom ñooy jëriñoo xam nga rappeur bi bëggul dara moom moom del kaas rek yow ah amoo yow bu amoo place amoo pant amoo place yow del kaas rek ah xamoo dara ci àdduna yow kaas rek nga xam del kaas quoi del kaas ñun ñu ñu ñu ñu ñun ñu toog ñun ñu nangam. loolu moom loolu la Sénégal di wane ko Sénégal di wane. donc il faut gars yi encore une fois comme ni ma koy waxee di masawu chaine bu baax ndax concert bi da koy yenu parce que ñoom ñoo jël engagement bi baale bu mu toogee ona a discuté avec lui muy muy man muy killa muy chaine et pourtant <laughs> killa dafa ñëw jouer dem chaine dafa ñëw. assurer affaire yi te lekku ci fukki dërëm man mii bokk naa ci ñu initier loolu man mi bokk naa ko <laughs> pourtant ñoo fa nekkoon di jouer man joué wu ma maa ngi fii joué wu bokk naa ci ñu ko initier kon man initiative hip hop moom mooy benn pour ñëpp loolu ma def noonu ñu artistes yi jëriñoo nañ ko bokk naa ci ñu ko rek te jëriñoo nañ ko te pourtant man loolu mooy sama plaisir de revoir mes samay mbokki mbaar ñu nekk ci maayit bi ñu taxaw sur scène di représente loolu mooy sama mbégte parce que doom Sanguem boo ci laal morom ja yëngu mouvement boobu laa am moo tax rappeur du adhéré ci parti politique c'est strictement interdit par les lois règlements yu hip-hop universel amul rappeur bu nekk ci monde bi bu bokk ci parti politique du Amérique du Australie du Canada du Japon kon du ko doon Sénégal moo tax doo gis rappeur bu dugg ci parti politique yor fa carte hip hop dàq na la parce que hip hop c'est un mouvement social d'indignation de révolte un mouvement populaire day dafay tere rappeur dem bokk ci parti politique loolu dañu ko tere loolu boo ko defee dàq leen waa ji dàq leen waa ji da xam ni newutul rappeur génn na ci mouvement bi amul ci benn mond ci hip hop am na fépp ci àdduna mais MC du bokk ci parti politique day indépendant loolu moo tax do Abdou Karim newul Pastef Mollah Morgun newul Pastef Nit Dof newul Pastef keneen ak keneen amul rappeur buy rap bu ñu xam bu nekk Pastef kër gi newul Pastef kilifa newul Pastef caat newul Pastef et cetera et cetera nañu am ay mouvement de révolte et d'indignation ay ay mouvement sociale d'éveil de conscience loolu loolu la ñu hip hop sant mais hip hop sant ñu ñu bokk ci ci ci parti politique loolu da c'est strictement interdit strictement interdit comme ni ñu interdire ñuy woy ay nit comme ni ñu interdire ñu jàpp ay nit di tagg seen baaxu maam parce que hip hop ay inégalité sociale lay xeex injustice lay réparer donc mënul fare ñii bàyyi ñee mënul fare ñee bàyyi ñii intérêt yi nation rek moo ko war a yitteel mais li gars def macha allah comme ni ma ko waxee cha amuñu fayam parce que même bu ñu defee réunion boobu muy Pape Alé Pape si euh, Pape Pape Alé euh, Chaim Thiamba doof man virtuellement waxtaan yi ñuy def yooyu yëpp buñ ci paree comme ni ma leen ko waxee Cha moo ci gën a sonn parce que kii daa ñëw joué dem man maa ngi fi toog kon Cha moo ci sonn Cha cëmba moo nekk ci organisation bi moo jël otoom def ci essence di contacter gars yi képp ku fa joué Cha cëmba moo la contacter parce que amour bu am ci hip hop amour bu am ci hip hop mais comme nu ma ko waxee tamit suñu suñuy dirigeant nee naa leen ñun hip hop la ñu am hip hop la ñu xam ak nu mu metti metti hip hop hip am nañ ci wàll am nañ ci wàll tey it doon na gën a neex comme nu ko sénégalais di xeexee yow muy xeex mbir te xam ko maîtriser ko balaa ñu koy jël di ko jox keneen ñu jox ko ay rappeurs yi nga xam ne dañ koo xeexoon loolu loolu la sénégalais yi di réclamer saa su ne moo tax saa yi sénégalais yi jógee di lu yeexaay bi nga xam ni malgré que je comprends mais yeexaay bi nga xam ni gouvernement bi yeex na ci changé torop yeexaay boo xam ni sénégalais xeex bu ñu xeex heure bi foogoon nañ ni affaire bi raxas nañ gaay raxas nañ gaay ndokk ca xaj mais mettit boobu noonu góom bu góom boo xam ne fajoogul wérogul ñuy gis gars yi nga xam ne dañ leen doon xeex ñu toogaat foofu fu ñu toogoon loolu mooy metti sénégalais te loolu man comprendre naa c'est frustration la quand parce que nit doo dem fenn nit nga fekk fa ab noon mu mu rey sa frère nga xeex a xeex a xeex a ba jëlee fa ponkal ma pour mu génne fa criminel ba ba léegi nga fay dem fekk fa criminel bi <laughs> loolu tamit loolu neexul loolu bu sénégalais mënul muñ sax ba defu naan mën nañ def euh, vendetta mën nañ mën nañ mën nañ def euh, le karma mën nañ réplique xëpp ci kaani parce que ki rey sa frère wala ku rey sa nangam toogaat ci nguur yow dangaa dangaa changé woon pour affaire ba changé mais dangaa changé woon pour mu changé mais boo changé c'est vrai que bon c'est c'est normal si suñu culture la bokk Sénégal dafa xaw a yàkkamti mais <laughs> dinañ leen comprendre parce que neexul ci xol Mouhamadou Lamine masali ba léegi ci passeport diplomatique am lay voyagé Mouhamadou Lamine Massaly ba léegi PCA la xam naa junni PCA amul benn PCA bu fi wàcc te PCA dañ ñoo xeex a xeex xeex directeur général yi dañ ñoo xeex a xeex a xeex a ci ñi rey gaay ñi ay nervi lañ jël ñiy jël ay nervi Doudou Ka aéroport boobu boo fa demee mi ngi xeeñ xunnu ak APR mais changé wuñ kenn Doudou Ka bu mu ñëwee dafa teg ba mu fees jàll ak ay nitam buñ ci paree euh, jéey beneen jéey bi moom moo fa ñëwoon duy fa ba mu neex ay nitam mais ñooñu ñoo doon saaga fii gars yi di xeex ak ñun ñoom ñoo ne woon nervi yi Doudou Ka doon jël di leen yónni jigéen sor ñuy xeex ak Sonko naan dañuy taal këram et cetera et ñooñ ñoo nekk ñoo ñoo nekk ci administration fees fi dàll. léegi yow c'est kii la rey bu fekkee moom moo fa toog ba léegi nga romb kii rey say frère kii rey say sœur mi ngi toog fu mu toog ba léegi buuseegul meetar ay bés di fi am ay bés ñuy tëb ay bés yoo xam ne war nañ mën a même bu dee changé benn changé wuñu kenn gars yi toog di encaissé ba léegi benn masali PCA ak yeneen PCA ba ci samay am naa mbokk PCA xam ne ba léegi mi ngi fa te xeex nañu façon xeex bu ne xeex bu dul xeexu dëmm koo koo xeex nañu Masile yoroon fetal bi fii Masile doon saaga gaa yi doo wax te moo ci gën a ndaw am na ñeneen am na ñoo xam ne ay DG lañ ba jóg jéegi jéegi jóg ñëpp ko xam jéegi jóg fu mu taxawee jigéen jooju nekk si ndar fu mu taxawee ci télé day saaga Sonko lu mu ko waxul ci lu musum ñaaw amul mais jéegi jóg moo nekk directrice ba léegi fu mu toog ñeneen ak ñeneen loolu mu fépp foo dem mu nga justice ba ñoo fa toog administration ba ña nga fa fekk jàll douze ans ñu miine leen ci place yëpp ñu ngi fa fekk tepp tepp tepp ñoo nekk ci ministère yi ba léegi ba léegi ñu ngi ci ministère yi ñoo nekk ci secrétaire général bi waa waa APR la nga dem fekk directeur général ba waa APR la nga dem fekk euh, PCA ba waa APR la et cetera ñoo ñëpp ñu ngi ba léegi ñu ngi fa toog ah, ñu ngi fa toog ñu fa toog di encaissé nekk ci lu ñu ne di di ba léegi ñu ngi fay ko ba amul dara lu changé dara ba léegi ñu ngi fay ñoo nekk fépp mais bale bi dafa war a dafa war a am bale bi dafa war a am ñoo nekk ci ambassades yi ñoo nekk ci chancellerie yi ñoo nekk ci consulat yi même bu dee benn la ñuy changé sax benn par benn par jour mais gars yi heure bi mais Abdoulaye Wade bu mu ñëwee heure bi ñu waa euh, waa Abdou Diouf yi kat quasi totalité bi yëpp Abdoulaye Wade dem leen ngeen xool bu mu defee trois mois ou deux mois ci gouvernement mais tibb na waa PS yëpp tuur ca xaj mais Macky Sall bu mu ñëwee deux mois trois mois tibb na quasi totalité yu Abdoulaye Wade yëpp tuur ca xaj donc normalement affaire yi waroon na mën a gën a gaaw c'est très lent nag c'est très yax na torop ndax ay fan yu ñuy tëb ay fan yu ñu dul wàcce gars yi gars yi toog fa waa PCA ya gars yi amoon passeport diplomatique yi ba léegi ñu ngi ko yor ñu ngi voyagé passeport diplomatique yi ñu ngi naaw di dem fu leen neex di fayeeku suñu salaire ça va <laughs> à la limite c'est c'est compliqué loolu moom moo dal ci ci ci ci moo dal sama sama sama gouvernement moo dal sama président bu mu demee pari bu mu demee pari parce que ambassade boobu noonu ñu nekk foofu noonu mais waa Macky Sall moo tax ñu saboté ko dem jël benn ñaaxarañ jox ko programme bi mu topp ci gars yi di saboté fu fu fu fu fu président Diomaye dem fekk ko fa mu taxaw di di di yor portable am di saboté ba mu ca pare gis nga rës cër gu mu jox cër bu mu jox euh, Waly Seck sax jox ko jox ko euh, Diomaye a président Diomaye Faye ma ba mu paree sànni na fa lépp dem topp ji Waly Seck ma nga topp Waly Seck donc respecté wul sax suñu président respecté woo lu lu ko lu ko taxoon a jóg moom mooy juste toroxal suñu président toroxal pastefien yi wan leen mun leen dara ci ñun yéen dara changé wu fii gis nga ba léegi maa ngi snap loolu rek moo ko taxoon jóg mu dagg biyam daw dem foofu waroon dem Milan demul Milan mu mu jóge foofu noonu dem juste pour topp suñu président pour wan ni seen dara baaxu fi bu leen nax seen bopp seen dara baaxul maa ngi nii di nuyu seen président maa ngi nii à deux pas di wax moom maa ngi nii à deux pas di wax lu ma neex di nangam pour wan loolu yëpp faay la lay woon faay que yaa faay bu dul faay amul leneen yaa faay parce que kooku di snap du ministre du député du maire du consul du nekk ci chancellerie bi liggéeyul dara dara dara chômeur la bu dee chômeur boobu moo dem ba taxaw à deux pas wu euh, euh, euh, le président Diomaye di ko joxe loxoog wax ak moom mooy yaa faay qu'on le veuille ou non yaa faay faay bi nag kan moo ko def moom mooy faay bi ku ko def moom mooy Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci chancellerie bi ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk ci euh, ambassade bi ci ambassade bi waa APR ñooy saboté ñooy saboté liggéey bi ñoom ñooy saboté liggéey bi complètement bousiller affaire bi wala li lu amoon valeur ñu koy jéem a wàcce pour wane ni y a valeur amul amul sens donc loolu le président Diomaye daf ci war taxaw loolu Ousmane Sonko da ci war taxaw gars yi dañu taxaw def à ce que déjà ñii ñii dañ leen fi war a génne dañ leen fi war a génne dañ leen fi war a génne dañ leen fi jëlee parce que dañu sonal gars dañu sonal affaire yi lekk nañ suñu xaalis rey soñu rakk yi tiire ñu ay bal gaañ ñu tëj ñu fenal ñu tëj tëj aéroport bi jàpp ay nit fiché leen ñi ñëw ñu dugal leen ci kaso yi trop mais c'est que lu ñu daj dafa yàgg te dafa metti ñii vraiment bëggatuñ leen gis xeex bi ñu xeex fii yëpp c'était pas pour bugguñu bugguñu woon sax toog ñaari weer di gisaat waa APR yi vraiment ñi lu ñu def mérité wuñ toogaat fii ak ñun di lekkaat suñu salaire mérité wuñ ko mérité wuñ toogaat fi di lekkaat suñu salaire mérité wuñ toogaat deux mois trois mois di warax suñu salaire mérité wuñ toogaat ci suñu place mérité wuñ yor sañu passeport diplomatique di ko voyager c'est pas normal fépp problème bi fépp la problème bi fépp la il faut gars taxaw changer li fi nekk aéroport beeg poor beek ñi ngi fépp ñi ngi fépp aéroport bi ba demal aéroport demal dem leen aéroport ngeen xool publicité yëpp Macky Sall la fa ne publicité terre bi Macky Sall nga fa ne publicité terre mooy daw foofu ak photo Macky Sall publicité BRT bi mi ngi ci aéroport bi di daw H24 Macky Sall la fa ne mais foo tourné aéroport Macky la ngi daw panneau publicitaire yëpp Macky Sall la fa ne même teen bu ñu gas sax Macky Sall inauguré ko mais mi ngi aéroport lépp ñu li li fa nekk lépp enseigne yu nekk yëpp di daw déroulé aéroport Macky Sall la fa nekk nañ nañu dimbale nag changé ñu lii quoi nañu dimbale changé ñu lii lillaahi wa rasuuli pour xol yi mun a dal sax xol yi xol yi mun a dal tuuti parce que ñun bugguñu yeewu di gisaat suñu assassin yi toog fu ñu toogoon bugguñu yeewu gis ñu ñu fenaloon toog fu ñu toogoon ñu yeewu di gis ñi tëjoon xale yi toog fu ñu toogoon di encaisser di encaisser suñu salaire léegi sax ñoom dañuy wax naan ñun mënuñu leen changer parce que ñun am amuñu amuñu amuñu ñu leen di changer maa maa ngi ko dégg ci waa APR yi naan de du du yàkkamti c'est-à-dire da ngeen ñoo xeex mais amu leen sax mënu leen ñu sax changer parce que amu leen amu leen maanaam amu ay ay cadre yu yu ñu mën a remplacer <laughs> même pas deux jours loolu la ma waa APR bi wax na ma mun leen ñu changer di ngeen ñuy yàq changer parce que yéen amu leen boo leen amoon ñu ñuy remplacer kon remplacer ngeen ñu amu leen ñu ngeen remplacer seen seen i njiit ñu ñi ngi wër ñu ñuy remplacer mënuñu ko <laughs> ñoom ñu ngi koy lay boobu ñu ngi ko téye. ne ñun amuñu ñu leen mën a remplacer ñoom loolu moo tax boobu ba léegi ñun daanoonañ nañ ñoom nañ ñun jël nañ nguur gi mais mënuñu leen remplacer parce que ñun amuñu ñu leen remplacer et pourtant lu ñu yor ci ñu leen di remplacer ñu ngi fii toog di xaar amul diplôme bu benn nit wu APR am te yoruñu ko amul école boo dem ñu dàqoon jàng ci Sénégal ci monde bi ay waa Pastef lañ ñu ëpp xam-xam ci monde bi élite intellectuelle bi ay waa Pastef lañ muy Sénégal de bitim réew jàng nañ ci école yu gën a kawe ci monde bi ñu ngi fii toog di xaar seen i diplôme di liggéeyal tubaab yi kenn woowu leen ñu ngi toog di xaar te Sonko xam na leen Diomaye xam na leen ñoom ñoo xam nañ leen ñu ngi fii di xaar kenn woowu leen je pense en citer des centaines de milliers ñu ngi France ak feneen ak feneen mais kenn woowu leen ñu ngi toog ñoom ñu ngi nekk ci lu ñu nekk te xeex bi yëpp dañ koo xeex waa APR yi toog rek nu xujj ne duñ fa jóge jëluñu leen sànni ca xaj bu fekkoon sax defuñu ñu dara sax ñu ne ñu mun nañ ñoo muñ mais ñoo xam ne ñoo ñu rey fenal ñu sosal ñu tiiñal ñu taqal ñu ah toog fu ñu toog di eggali li ñuy def ñun ñu toog fu ñu toog ñun tamit di galère di leen xool suñu xol yi di chaine. xam ngeen gis patriotes yi mais gis benn ñaaxarañ buy taxawaalu foofu wala gis benn euh, euh, Cheikh Cheikh Gadiaga di taxawaalu foofu mais affaire leen métti ñëpp ko métti lu ñëpp ko ko métti lu foofu comprendre naa comprendre naa man lañ ma expliqué parce que bu ma laajtee dañ ma xamal ne ma chancellerie bi muy ambassadeur bi muy consul ñoom ñëpp seen doom yi dañuy jànge foofu seen doom yi dañuy jàng foofu donc dañoo scalo scolarisé wu donc dañuy bàyyi ba juillet ñu jëlee leen fa man loolu lañ ma xamal ñoom ñëpp yor nañ këyit buy firnde ni jóge nañ fa mais dañuy xaar ba juillet école yëpp tëj dese na deux semaines école yëpp day tëj ci bitim réew am ñuy def examen ak lépp day tëj parce que am na ñuy jàng ba léegi am nañu Angleterre di jàng am nañu France di jàng am nañu fii donc juillet c'est sûr école yëpp dina tëj ñoom ñu dem seen yoon mais ñoom ñëpp jox nañ leen këyit comme quoi dañ fay jóge loolu moo tax Maguette Seye saboté nii Maguette Seye yor na kayit bu ñu ko won nii da nga fiy jóge moo tax mu saboté ko ni mu ko saboté ci bu ñu recevoir le président Diomaye Faye en France kon ñoom ñëpp xam nañ ni dañ fiy jóge te yor nañ kayit buy wane ni dañ fiy jóge dans deux semaines xam nañ loolu donc seen seen doom yi bu ñu paree rek dañ leen di tëbal ñoom ñëpp dañ leen di tëbal donc côté boobu moom euh, vraiment gouvernement bi am na ci justification justificatif am na ci justificatif parce que ni ko waxee noonu man compre je comprends très bien bu ma demee jege leen laajte dañ ma ne dans deux semaines ñoom ñëpp nañ fi jóge ñoom ñëpp xam nañ dañ fiy jógee loolu moo tax ñu xaw a saboté France ñu def lu ñu def moo tax ñu def lu ñuy def léegi nag ñu nekk ci tamit ñu nekk ci pla yor place ba léegi def lu la neex di voilà quoi di di toogaat fu ñu toogoon dañ leen fi war a jëlee te dinañ leen fi jëlee dañ leen fiy jëlee incha allah bu soobee yàlla donc euh, loolu daray cuune newu ci nag. daraay cuune new ci vraiment ki fi nekkoon def lu la neex yow li tax jëlewu ko fo yaa xam lu tax ngay préparé wu xëy na sax musibaam la moom foofu daraay cuune amu fa <laughs> vraiment cuune amu fa nag voilà cuune amu fa xëy na ki ngay remplacé da ngay préparé wu da nga koy préparé pour mu remplacer ko wala daf wala daf da nga am lu nga li nga leen di toppee boucler ko pour doog leen fi jëlee et cetera et cetera <laughs> donc yow yow yaa xam say argument man je parle du peuple peuple bi rek ñoo ñoo xaw a yàkkamti yàkkamti bi du dara lu dul ñi ñi leen rey ñi leen gaañ ñooñu la ñuy gis te bëggatuñ leen gis ñooñu ñooy lekkaat seen salaire te bëgguñu lekk seen salaire te am nañ ci droit nit ku nekk da am. boo demee ci Ousmane Sonko boo waxee am na ay raison comme nu ma demee laajte affaire ambassades yi luñ ma jox raison la dañ ma xamal comme quoi ñoom seen seen doom yi dañoo scolarisé wu dañuy xaar ñoom ñëpp jot nañ donc gis nga ñooñu kon ñooñu am nañ argument. peuple bi tamit am na argument parce que peuple bi moom mooy dañ leen gaañ rey leen tiiñal leen taqal leen tëj leen ñi ñi ñu toroxal leen et cetera et cetera ku lu dul peuple bi buggul lu dul ñu jóge fi donc ku ci nekk rek da nga koy nangul peuple bi ni ñu taxawee frustré wu am lu leen metti ci ñi leen assassin yi nga xam toog fi ba léegi moo leen metti nguur gi tamit am nañ ay argument yu solide yu taxaw yoo xam ne ñoom ñoom it bëgg nañ xamal gars yi ñii ñëpp dañ fi jóge mais dafa am benn temps lu ñu war a def wala ñii ñii dañ leen topp parce que du seen jàmm bàyyi nañ leen leen mais bàyyi ñu leen ci sago parce que ñi ngi nekk di boucler seen i dossier doog leen a dàq et cetera et cetera bu ci nekk am na am na argument ma njiit yi am nañ seen argument yi taxaw yu kenn mënul dindi peuple bi am nañ seeni i argument donc euh, euh, je dis pas que sénégalais yi du ma mus a wax ne nag sénégalais amuñu patience parce que vraiment am nañ patience patience weesuwul lu ñu def patience weesuwul lu ñu def ñi nga xam ne toog nañ fi boobu ba léegi am na patience mais euh, amul lenn luy wane ay ay mbirum tuune voilà même bu ñuy opposé wu sax même kuy opposé wu na nga opposé wu positivement am benn am benn ngëm-ngëm quoi man bugguma man gooma opposition ngay opposé wu nii xam nga opposition bu amul la ngëm-ngëm quoi man man man góomu opposition fen opposition fen góomu ko parce que bañ nga nit ki rek bu ko sosal ngay fen man góoma fen quoi man maa gëmul fen man comprendre ma ba léegi nan la nit mun a fenee quoi nan la nit di fen nii quoi fen am envie di fen nii xoolal waxuñu la amoo information ngay fen nii parce que da nga am envie fen man loolu laa mënul comprendre ci nit nit nii fen nii parce que da nga jug rek fen opposition suñu opposition léegi bi nag fen fen da fen da leen ne dañuy toog nii fen nii rek dañ bëgg opposé wu rek ñu fen moom la ñuy def ba léegi manipulation lu ñaaxarañ loolu loolu yëpp manipulation ñu mel ni koo xam ne dañ ko dugal mu muy ñu mag jomaayee euh, ko yónni fekk wala jomaay la àndal manipulation fen nit mënu ci am ndam yàlla du musa musa musa toroxal dëgg jiital fen donc kuy fen moom doo am ndam moo tax opposition bi gisaguma ko fi sax opposition amagu fi parce que ñi fi nekk ay fenkat kese ak manipulateur manipulateur manteur ñoo fi nekk ñoo nekk ci presse bi ñooy taxawaalu ci média yi ñoo nekk ci internet bi APR association des prostituées de la république fen rek fen rek fen ak sos manipulation loolu moom mënu fi jëlee kenn kenn kenn ndax fen moo leen daane da il faut ngeen def réunion waa APR il faut ngeen def réunion toog ngeen waxtaan seen biir ngeen xool lu leen daane fen kese moo leen ak manipuler fen ngeen jàpp nit yi tuddee leen ay terroriste jàpp nit yi tuddee leen ay reykatu nit jàpp nit yi leen ay force spéciale foog ni yéen a téegal gaynde gi jàpp nit yi tuddee leen ay lu ne mais xool ni ngeen daanoo fen moo leen daane ak manipulation billaahi boo leen bàyyee fen ak manipulation génn ci boo leen bés boo leen bàyyee yéen association des prostituées de la république à bés boo leen bàyyee fen ak manipulation ak transformer ay wax do billaahi boo leen ko bàyyiwul doo leen mus a toogaat seen giiru dund seen giiru dund waaw parce que sénégalais ñoo leen gën a yeewu te da ngeen foog mun ngeen leen manipuler ñoo leen gën a yeewu fuuf manipulation du yàgg fen fenn la dul yàgg lu fen fen teel xëy dëgg bi dañ ci weesu ko balaa ngoon you loolu la wax lu fen fen teel xëy dëgg bi dañ ci weesu ko balaa ngoon li ngeen fi fen douze ans ngeen fen ci benn bëccëg lañ leen fi jëlee douze ans ngeen fen douze ans ngeen di manipuler daanu ngeen daanu bu ñaaw waay daanu bu daanu bu salte waaw ba léegi mënu leen jóg continuer leen di fende <laughs> ngeen xool ba xam benn donju mango sax doo leen ko fi doo leen ko fi gañe kenn amatul ci yéen confiance ndax fen continuer leen nii ah da leen fen rek <laughs> da leen continuer leen di fen ak ma di dagg vidéo fen fii kàcc manipuler <laughs> boo leen ci gañe ma xam ni ma xam ni yàlla amul da leen fen rek da leen leen di fen rek di fen rek di fen rek di fen ngeen ba daanu continuer di fen rek ngeen xool ba xam di ngeen jógaat ku taxawoon fen ba daanu di fen di fen di fen di nga jógaat doo mës a jóg <laughs> nii da ngeen di toroxee tottu ngeen di toroxee tot tot tot nii a ngeen nar a toroxee man <laughs> voilà donc euh, kon gars comme ni nga ko defee rek le combat continue euh, suñu njiit yi am nañu raison peuple bi am nañu raison te léegi dinañ kontaan bu soobee yàlla waaw léegi rek dinañ kontaan ils heureux parce que gars yi ñu ngi liggéey ñu ngi jaar yi ñu ngi liggéey ñu ngi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan te incha allah les choses vont changer patience rek patience man laa loolu wax. du tee nag danañ ñaax gaay dañ ñaax gaay xamal leen ni ñii rey booy yi ñu tiire booy yi tiiñal leen taqal leen tëj leen toroxal sénégalais yi ñoo ñu ñun bëgg nañ bëggatuñ leen fi gis quoi te lekk suñu te lekk suñu salaire métti nañu trop quoi yow di lekk di yow di gis masal yor sañ passeport di ko doxantoo di dem di taxawaalu di yow di gis masal di encaissé par mois non métti nañu trop dara amu ko ñoom ñëpp amuñu dara ñoom ay politiciens lañ ay politiciens amuñu dara Macky Sall léegi nag li ñu xaaree Sonko ak Diomaye mooy ñu jëlee ñu fa jëlee leen fa quoi nit mun a féex tuuti seen xol yi mën a sedd quoi eh, fenkat yi buñ ñoo fi toog ba léegi ñoo fa toog ba léegi nag loolu dara mënu fi changé bu fekkee ni corrompu yooyu ñoo nekk ci administration ba léegi fa fay changé nañ ñu changé ñi yàq quoi nañ ñu changé ñi doon yàq nañ ñu changé poson yi les poson de la république nañ ñu leen changé nañ ñu leen changé pour nit yi am tuuti taw tawféex ngir yàlla dimbale leen ñu jëlee ci poson gi bale leen ñu dese toxiques yi on est fatige là on est fatigué on souffre en silence le peuple souffre en silence voilà ñu ci dimbale posonu république bi ngeen jëlee leen fi. jële ah, sàcc yi sàcc yi criminels yi non du sàcc sax dafa criminels yi sax ñu ngi fi sàcc yi criminels yi reykatu nit yi fenkat yi ñu sosal sénégalais yi tëj leen c'est incroyable c'est incroyable léegi lu fi des rek lu si des lu si des mooy bale bal nañ leen bale nañ leen fi bale voilà gars yi ñu ngi fi ressource euh, ressources humaines yaa ngi fi gaa yi am nañ xam-xam ñu ngi kon loo leen jox dañ koy gérer waaw loo jox dañ koy gérer fii on peut tout gérer am nañ compétence yi am nañ possibilité bi ba pare am nañ lu ñu ñoom lu ñu ñàkk xam nga moom mooy lan ah moom mooy ñun am nañ patriotisme ñoom loolu la ñu ñàkk nag te loolu mooy cerveau développement patriotisme nit nu am alal am alal am alal te te gëmul dara te amul amul lu mu jomb kooku noonu boo ko jiitalee tamit da lay toroxal sa sax wane na boppam bu mag euh, Mouhamed salaa salaam di ñëw autodidacte la jàngul dañ ne ko iqra bismi rabbika jàngal sa boroom yaa ngi may donc te kooku jàngul dara dara te moo gënoon jub ci askan wa musul jàng moo gënoon jub ci askan wa loo ko jox dala koy delloo jàngkat ya ñuy fekkoon ñu jàpp lépp gëm nekk ay njiit yor ay xërëm xoolal yàlla na leen fa ñukk yàlla ñukk la leen fa yàq na kon gis nga ku la ku la dàq jàng gën lay ëpp diplôme gën la nekk triant gën la nekk sàcc loolu la Sénégal musa ab Abdoulaye Wade kenn ëpp koy diplôme ba mu ñëwee dafa cartouché dafa yàqule dara defu ko fa dafa dafa redoubler rey sénégalais daw moom ak ay ñoñam Macky Sall ñëw ànd ak ay nit ñu naan ñii dañoo jàng ñii def nañ Sorbonne ak ñii def nañ ay lo tal xolal tous loolu moo ñu tardel intellectuel ay bandi ay bandi salté ñoo ñu tardel vraiment ñun bëggatuñu ay borom CV yi te CV fen rek fen parce que waa ji la man bu ma nee ne la génnee naa fii eh, université bëri ICAM fan ngay dem di ko xool fan ngay dem di ko xool amoo benn preuve yow mu yow sa bopp yow ma la wax bérikaam laa génne amoo benn preuve te defar diplôme yomb na aka yomb donc gis nga yooyu ay naxee mbaay la ay indil sa CV nangam nangam sa waay gëm a xamal ni waa yi gëm na boppam xamal ni waa ji patriote la xamal ni waa ji ku xeex bi yëpp dafa mus a xeex pour le peuple xamal ni waa ji c'est un incorruptible duñ ko koromp man kooku laay jiital ki yor jikko yenent bi ku yor ay valeur yor ay vertu am lu mu am lu mu gëm kooku laay jiital kooku boo doon teg milliard ko laal mais du ma jiital ay sàcc yu yor cinquante mille diplôme dem yokk ci benn CV da ngay gis kenn ko yor CV cinquante mooy benn waay bi am trente cinq ans yo bi am na boo xoolee e ji boo ci génnee trente mais waa ji cinq ans lay dese xanaa bu mu commencé am diplôme bu mu amee cinq la commencé diplôme. xanaa xanaa la tàmbalee jàng. non mais da gis da gis kenn koo xam ne da ngay xool âge bi trente cinq la am quoi. nga xool diplôme yu mu la jox yëpp boo ko calculé normalement cursus boobu noonu kooku quarante cinq ans la wala cinquante ans. Ah, du dëgg quoi. du dëgg mais amoo foo koy vérifié. moo ko vérifié fenn moo tax CV naxee mbaay la naxee mbaay kese la <laughs> sa waa ji na gars yi dem jëli ay nit yu nit yu bëgg seen réew ay nit yu jub. donc borom boo du jeex. waaye bërki démb bërki démb rek Sénégal ma cuucu fay jóge na fii dem France ne ne ne am na doctorat ah génn fii yor gis gis ngeen ko ah mais alors mais gars yi di jënd ay diplôme gars di jënd ay diplôme gars di dem di jënd ay def naa soutenance rek defuñu tous Sénégal rek loolu loolu boo ko doon lijjanti Sénégal ñu bëri fa bureau yi nga leen di fekk mën na te leen leen ndax dañoo fen ci CV CV Sénégal ngay dugg ak ñoom ay CV ngay xool ay nit yu jub ñoo xam ne ay nit yu gore yu am yu am ay valeur yu am lu ñu jomb lu ñu am lu ñu rus voilà ñoo xam ne dañuy taxaw mu naqari dañuy taxaw mu neex dañuy taxaw du ñu trahir duñu tromper duñu manipuler duñu manigancer duñu duñu fen man ñooñu laa gëm tey Mouhamed sallallahu alayhi wasallam gis nga yàlla bu muy bu mu tegee Makka ak Madina ñu <laughs> waajooju la fa jël teg à l'âge de te kooku moo daane lépp. mais dinañ li sàmm bi mu ñëwee ba pare yaa bi ñu indee dinañ li sàmm dinañ li sariya. Ah, ah, ah, voilà di règle très bien. Sénégal nag ñoom dañoo dañoo jënd ba pare jël dafa indi sariya teg donc règle yi. day day day day yar. règle yi day yar bu kenn bu dañ dañ ne mbéj buy yar mbooloo ci benn lex lay dal hmm. loolu la wolof wax te loolu si très philosophique. dëkk ba def lu leen neex nga génn kenn xool kenn ki tóor mbéj boo xam ne ñëpp xool nga expliqué lu tax nga mbéj ko ma kenn du ko defee kenn du ko ñoom ñëpp cotte lañu def day yar ñeneen ñi ñu laalagul ah day yar laalagul waa ji di wax naan bu fekkee bu ma sa baay bu ma boo ma tooñee dama lay dama lay jéggi dem ba sa baay ñuus ko bu ma ñuusee sa baay rek nga xam ne yow yow da sa dama laa jéggi dem ñuus sa baay donc di nga xam ne yow kon ah, jàngal naa la leçon boo xam ne soxlawul soxlawul coow lu bari mais loolu la mais vraiment man moom man bu ma gisee nit ñi mu indi CV ñu gi damay tiit dama ne oh beneen sàcc ngi ni mhm. beneen sàcc bu doon CV la doon Ousmane Sonko du nekk premier ministre impôt impôt domaine la génnee mais amul benn école buy jàngale premier ministre amul amul école buy jàngale président quoi ah kon ñun ñu fi teg ñëpp ay genre lu ñu leen jàppee moom mooy comme jaar jaaru Mouhamed salaa salaam dañoo jël ay koo xam ne musul jaar ci administration maanaam liggéey ci gouvernement musul doon ministre musul doon maire musul doon dara ñu def ko président. waaw loolu yàlla moo ñu bëgg a dimbale quoi te kooku te kooku te kooku moo gën a tuuti diplôme ci ci ñu fa jot a jaar te moo leen gën a jub moo leen gën a set moo leen gën a sell moo leen gën a ragal yàlla. te ah, ah, ah. très bien te te kii moo ci gën a tuuti diplôme moo ci gën a tuuti diplôme moo ci gën a tuuti expérience étatique mosul taxaw ci état. mais tey moom la sénégalais gën a am yaakaar ci ñi nga xam ne jàng nañ ko nekk ay ministre façon ministre bu ne. Abdoulaye de nekk na fi ay ministre nekk na ci gouvernement du jeex du xaaj ak Abdou Diouf Abdou Diouf même chose Abdou Diouf Senghor moo ko fi bàyyoon newoon na ci gouvernement kooku amoon na expérience dafa échoué. Abdoulaye Wade dem ci gouvernement dafa échoué. avant moo doon président Macky nekk ci gouvernement bu mu ñëwee dafa échoué kii musul nekk ci gouvernement bu mu ñëwee moom lañ gën a am yaakaar kon loolu rek war na mën a firndeel ni sénégalais dañu war a jël ñi ñu ñu combat ñu gëm mbir yi jël leen jiital leen duñ ci am déception buñ leen fi ne ñu ko nag naan dañuy jëli borom diplôme yi ñu trahir leen yàq seen kii waaw répétition lay doon voilà xam nga lu waral loolu xam nga lu waral loolu hmm. éducation lañ amul éducation de base ak doylu waaw waaw waaw waaw sàcc moom loolu la rek sàcc. sàcc booy ñëw di président da ngay jub de commencement. Uh-huh. milliards yi ñu koy xëy di ko jub sa buntu di nekk sax saa boo yeewoo naan la bi ngi nii xoolal loo. voilà dañoo baadoo la. loolu maanaam mais xoolal la gis nga boy non gëm yàlla. gëm yàlla moo jiitu lépp su ñu am président yu gëm yàlla ñu ñu ay ñu ñu yàpp yàlla lañ am. le président Diomaye da ngeen di toog nii di waxtaan waxtu julli bu jotee fa la lay bàyyi. ñi nekk Paris dem gis ko xam seede nañ ko te feneen ak feneen barke rasulaay ay nit ñi ñëw audience mu summi dàllam dem jàpp ba set dem julli ji ñëw mais nit ki da ragal yàlla nit ki da ngay ragal yàlla boo ragalee yàlla rek jiit jiital yàlla da waaye bu ñu la tegaloon fii milliard doo ko gis <laughs> léegi nag réew mi dañ ko war a defar réew mi dañ ko war a defar voilà ñu fi jaajëf Faye ñu ngi ziar lépp jàmm da ngay tey ça va bien. ah, ah. Euh, euh, bi. Ah, merci beaucoup merci beaucoup merci. jaajëf jaajëf Faye waaw ah, mën nañ photo. waaw bisimilah. bisimilah. yee nañu tag la nañu tag nit nit yu bëgg seen réew rek nañu tag nit yu gëm seen réew. ñu ngi koy. jaajëf ñu ngi koy euh, apprécier. merci beaucoup merci vraiment merci beaucoup. merci pour <laughs> yes <laughs> waay respect wax dara jaajëf loolu mooy loolu bi xam nga a naxee sénégalais mooy combat bi sax xam nga xam nga du ñëpp quoi mais il faut gars yi am culture boobu culture wu am ngëm-ngëm man ngëm-ngëm laa gëm parce que man ngëm-ngëm moo ma moo bàyyi fii Sénégal xëy na mën naa taxaw ne Sonko kese ci sa am na fu tolloon ci xeex bi ku dul Sonko ëpp ma proposition am na fu ñu tolloon ci xeex bi Sonko rek laa gëm ni à part amul keneen ku ñu bëggoon corrompre que man amul ci tolluwaayu xeex bi mais ngëm-ngëm googu mu mës gëm moo ma bàyyi fii tey ngëm-ngëm gu Sonko gëmoon pañ corruption Macky Sall pare pour def lu ne pour moom pour mu wàccee ay armam loolu moo ko may lii lañ ma doon tax di jéem a proposé proposé wuñ ko président bi toog fi tey Diomaye <laughs> amul proposition yooyu nekk woon fi danger boo xam ne tey jii gars yi nañ ko éliminer gisoon nañ ni président la waroon doon ñu jëm ko éliminer naaw nawul mais bu weesoo Sonko amul façon proposition bu dul proposition jinne boo xam ne de Macky Sall à Marème Faye Sall de Marème Faye Sall à Ba man aw ma ko barke alxuraanu karim ba léegi maa ngi doo gis mukk Macky Sall taxaw ne kii corrompe naa ko wala ay nitam yu ko wër ne kii ñun corrompe nañ ko ak lu ñuy rëy làmmiñ yëpp kenn yabul kenn du ñëw di la wax loolu loolu ngor la te aw ma te aw ma ko aw ma ko nekk ma fii di jéem a xool bu ma ko jëloon tey kenn waxatuma un franc soxla ma ko ci ñoom Constance Marème Faye pareil ba ci Amadou Ba bu muy Amadou Ba kan moo ko daane bu ñu waxee dëkk combat bi kan moo ko rajaxe à la dernière minute ba may génne ay jabaram ba may génne ay bu yàqal gu ma ko yàqal kan moo ko fi yàqal à la dernière minute la la këppati bopp beeg baat bi te crédibiliser ko te moom xam na ko ñëpp buñ ñu ko wër yëpp xam nañ ni kii moo booy bi moo la éliminé te avant boobu wax naa ko fii tout le monde na leen man Amadou Ba ñëw na ci man ñaari yoon discuter man pour ma dimbale ko benn bi pour xaalis beneen bi ma bañ xaalis bi beneen bi mu ñëw ne léegi dimbale ma bàyyi ma sax même boo ma yàqalu bu ma yàqal ko a man maa ko yàqal te am na ñoo xam ne bu ñu toogoon fu ma toog warax nañ alal gi ba dem seen yoon parce que ñoom pour ñoom am na ñoo xam dañuy wax ne moo laa jëlal xaalis bi nga lekk ko yaa ko moom man nangu ma ci loolu xaalis boobu moomu ma ko askan wee ko moom man góoma loolu lekkal xaalis bi yaa moom moomu ma ko askan wee ko moom xam nga borom daraja yeeg borom man loolu laa gëm borom sëriñ yéen xeetu sëriñ yëpp li leen daaneel lan la hmm. mooy alal ji nga gàntu mënuñu koo gàntu très bien voilà man respect boobu laa am ba léegi ci ñoom APR doo gis kenn ku dugg sama zone tey bu ma lekkoon seen un franc bu ma lekkoon seen un kon ba léegi ñu ngi taxaw billaay preuve yi la ñuy dóor fekk xool noppi bu yàgg mais damay saaga seen ndey ba seen bàmmeelu ndey te ñu muut la ñuy def donc seen bàmmeelu ndey di saaga seen ndey ñu ne muut ay bu ma leen lekkooloon un moo tax booy wét gore wétulu ko gore diiñ diiñ koo taxawal siggi man amul kuy dox Sénégal yoo xam daa taxaw moom sëgg j'ai été digne bu moment bu ñëpp ñu bëri sëggee j'ai été digne bu ñu jàppee samay soldats yëpp dugal ci kaso bi ma des fi man kase jàmmaarloog ñoom mel ni junni nit multiplier wu junni nit yàqal leen fépp lu ne jiñ nañ ma ko booy fu ne topp nañ ma fa ba fii ay nit wër nañ fii xoolal loo xam ne man tàppetum tàppet du ma tàppet du may wax nit yi dem nañ fu ne di laaj fan laa dëkk nit yi dem nañ ba euh, benn GP buy dajale kii sénégalais ñëw ba foofu di mais Mollah est-ce que day ñëw fii Mollah fan la gars yi dama woo naan ma mais am na ñu ñëw fii ñu ñu yónni ñi ngi ñi ngi lay wër mus naa dugg sama néeg tëju si laaj ci mbedd yi laa koy defee parce que man man sa waay dee sama ak sama as sama askan moo ma gën a dee ci bopp bi metti dee ci naan para euh, paracétamol man bëgguma dee ci paracétamol xam nga dama bëgg di xeexal sénégalais yi ci mbedd yi bañ na ma këbaj bopp ak baat mu wóor ne man ci jihaad laa dee. la naa la dégg benn affaire nag de. waaw Sénégalais yi ñun man bokk sama dama part personnel kenn du la seetaan. non non ne sax. Seydina Mohamed wallaahi. xam nga dafa wax benn wax ba sëñ Cheikh Fall Baye Góor dafa wax benn wax ba mu solo nee na. Mhm. Mhm. kese waaw. parce que Cheikh Ibrahima Fall mii nga doon xeexal démb ñëpp fekk seen mhm. su la joxul sa wàcc waay sax nit ñi dem bàyyi ko. <laughs> wallaahi la loolu mooy dëgg sax bu muy métti day <laughs> daw ñu benn yoon te raag bi tar na te dafay yàgg na deux mille vingt et un la bu ñuy tiire gaaya laa yanu affaire Adji Sarr ba di ko ci teg tambour battant mu tàng jër réew mi ni boy ma taxaw laay vantaa rek dix mille personnes taxaw tak tak tak ba ñu tam ñu naan booy yor nañ vidéo yor nañ kii ma pressé du faux pour avoir du vrai vuruj varaj dugg xool si génne na leen bum on seen on continue ba tey xoolal suñu mbàtt <laughs> xeex xeex bi moom. ku ñu waxoon Sonko mooy génn nekk président. barke Rasulaay ba ci biir kaso bi mu dugg ci kaso bi gaa yi fàtte. mu dugg ci kaso bi gaa yi naan day bokkam du bokk. <laughs> ci boo demee ne Sonko ñoo la génne fii duñ tudd ñett te tudduñu ma tudd ñett te tudduñu ma. wallahi billahi wa taala aha duñ tudd ñett te tudd ñu ma ci. te ñu bokkoon ci processus bi dugg ci biir di xeex ba ci Sonko nekkee ci biir. ba bu muy buñ koy indi volo bi vélo bi ba buñ koy indi tapi bi ba bu génn sol blouson di football ak doomam yi ba buñ koy indil kóol bi di ko ci dugalal ñetti numéro na ko yii nga mën a woo lépp maa ngi taxaw lépp maa ngi taxaw histoire boobu dama ko damay gëmm di ko réciter mun naa ci bind livre l'affaire Adji Sarr ba fu mu mujjee ba ñoom Sonko jour bi ñuy génn mun naa ci teg livre kenn gënu ma jege loolu te maa ngi nii ba léegi toog di ko maintain du ma ministre du ma député du ma maire du ma mais xoolal la xamalal laa am xëy na lu lu ñu bëri amul mooy respect bi am naa ko ci sonk am naa ko ci le président jomaay loolu moom cërale nañ ma ko doo leen dégg mukk ñu génn di wax ci man quoi que ce soit doo leen dégg mukk te fu ñu amee opportunité wan nañ ma cër Paris diisoon na xatoon na metti woon na président Diomaye gisuma sama frère ma bokkoon ndey ak baay kese moo ko ci gis ñaari yoon te du ministre du député du maire lu jëriñoo mais sama tur sama tur la jëriñoo bokkul ci liste amuloon audience fexe na ba kurti kurti ba dugg bu mu duggee bu mu ne président Diomaye loxo la ko téye moo xañu loxo bi téye ko cinq minutes di wax ak moom ba ñëpp tiit parce que moo laa bu mu ci dégg mu téye ko nem nemmeeku ko wax expliqué lépp ba mu paree man mii laa la wax naa ko Sénégal message na ma te jour fête de la musique la félicité ma ba laaj ma album fondamental numéro deux ñu toog waxtaan ci ñu waxtaan ci parce que dama ko fàtte woon te loolu maa ko te digga bor la kon kooku jox na la cër malgré que président de la république mais fàttaliku ne démb ak bërki démb bu mu doonul daara ma joxoon ko cëru nit cëru cëru nit laa ko joxoon moo tax fu mu ma woo damay jël fu mu waxee ak man damay jël te ba léegi loolu lañ sekk donc man ak moom ay ay doomu ndey lañ sekk gaañoo gaañoo ñu jël ko interview dëkk bi xat loolu amul activiste wala rapport bu mu tudd ci biir mbir yi bu nekk Sénégal histoire yëpp bu mu waxee mu moo laa la fa tudd kon kooku bokk naa ci histoire am buy wax histoire wax na histoire Pastef wax na histoire école am wax na histoire yaayam wax na histoire yëpp mais histoire bi yëpp Mollah Morgun xaaral ma jox leen benn anecdote génn lool sawdaar la pour wane ni Mollah dafa bokk ci sama story dafa bokk ci sama life parce que bu muy tardé tar tardé tardé kenn xamul man maa man la doon woo def ma gaayen di ma woo chaque dix-huit heures et pourtant noonu laa ko doon jëlee sama temps te pour ku ma ne woon ku ma ne woon kii dina ma sa doon président donc man damay gëm nit ci bu amul dara man du ma opportuniste lu ma lay wax ni 2016 2017 ah xam nga loolu yàgg na léegi man boobu laa ko doon déglu di ko jox attention muy wax ak man di waxtaan ak man di échanger ma koy jox ay saawoon mu may jox ay saawoon di ma jox ay affaire mu wax naa ne le président Diomaye bi newoon na manager manager groupe groupe bu rap séeréer nekk njagañaaw muy jël di ma yónnee seen son naa ma mais ma déglu fi maa ko waay waay mais joo ki ki ñi aay ñu waay ñu tooñante joo ñi ay ñu non ba li nga wax moo lañ sëkk moo tax bu mu déggee ni sama rakk ñëw na fa mu xaj mu ne xajal leen ko mu dugg mu dugg te amul audience mu toog ak moom jël moom temps waxtaan kaf ree ba pare joxaat ko rendez ne ko suba ñëwaatal sama rakk bi ba jour bu président Diomaye di départ ñëwaat na encore <laughs> moom moo ko fa am <laughs> voilà parce que waaw parce que grand frère mu ngi jëriñoo barke grand frère am te grand frère moo ko fa liggéey moo tax fii wét goro wéttalu ko goro booy dëggu jub nekk ci combat bi gëm ko kese booy wéet sax deyal ci dëgg man loolu laa gëm man loolu kese laa gëm nag gisuma daraay adduna lu lu xisamay bët ba mu war a taxaw ak ancien spermatozoïde futur cadavre di la fen nii parce que dala neex quoi dala la fen di la fen mais mais yow yaa may jox lekk wala naan wala yaa yor sama dund wala yaa may rey wala yow yaa yor samay tiyaaba yow nga toog ni ay tànk loxo nopp moo war la fen quoi pour pour te faire plaisir daal yow koo xam ne yow bu buy métti xaw ma la non man loolu amul mënul gëm nit nit taxaw nii benn tànk loxo nopp bu taxaw nii nga war ko fen quoi non jomaay kii yéen lañ fekk jomaay di fen nii quoi di fen di fen culture fen quoi fen raxu di fen nii nii parce que dañ ko bëgg a man day yàlla yàlla ma yàlla musal ci xaw ma lan kan la yàlla bindagum ma war a ragal ba jàkkaarloo mu di ko fen pour rek lu ko neex quoi après mu dem nalawi man ma dese samay bàkkaar ndax fen gu ma fen quoi pour pour neexal wa <laughs> waaw ah, kulul xaq walal kaanu mu ran waxal dëgg doonte dañuy faat dañ lay faat ba dañuy tàggale sa bopp ak sa baat waxal dëgg non fen bi dafa grand Sénégal ah waaw waaw loolu la de xaalis rek moo yàq dëgg moo tax ma ne wet gore wettilu ko gore booy dee sax deyal ci dëgg deyal ci dëgg rek dayal ci dëgg point. ñi war a daal bu feebaree moom. ah waaw waay. billaay wallaay. imaam yi wax nii ak ñoom ñoo gën a feebar. ah non réew mi kay réew mi dafa jaxasoo de. moo tax waaye moo tax yàlla di yónni ay xut bu samaan yu mel ni sama genre gi ñu leen koy dóor muy metti ci ñoom seen xol yi di dagg ñu xolal waaye yàlla yàlla daa yéeme de day indi borom dara ji yor ngaram grand bu ñuy wax gars yi di tëj seen nopp yi mu dem indi ay booyoo xam ni ci buuju bi ci buuj da leen a buuju ci mbalit bi la leen jëlee booy tàng jër munu luñ leen dara boole ko ngëm-ngëm nag di fadd di wéy di fadd man bu fekkoon ay wax keroog moo may daane da jógewuma fi. xam ah, nga xamal ma neex si waaw <laughs> ah, wallaay intérêt Sénégal kese. Ah, booy xeex jiital intérêt Sénégal. kenn du la tiital faalewoo nit buy dox doo gis nit. mais booy xeex ndax sa ay sama tur ay noo xaaral kii nee na ma yow bàyyil fan may ragal parce que sama tur laay sàmm. <laughs> mais man damaa jël sama bopp jox ko Sénégal addiya existé tu kon munoo saago ko existé tu ma damaa jël sama bopp jox ko Sénégal addiya point munoo wax lu ma saf munoo wax lu may wàcce munoo wax lu ma noppiloo fii dama dëgër boobu de tuma barke alxuraan doomu aadama doxul Sénégal ku mu mun ku am gémmiñam lu ci mun a génn lu mu mun a wàññi seconde fii ak maa dëgër bopp te wow le non ku ko xamoon noonu bu ko xamoon day noppaliku noonu yu ci man yëpp a noppaliku ci parce que de xoolal deux mille vingt et laa ko déclenché ñu ngi ñu ngi ban année. deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre mos ngeen ma gis ma taxaw. <laughs> daw ma dellu ma ginnaaw kon kooku daw ma arrière ma moo tax ku yaakaar ni am nga lu yàlla may loo mu mën a wàññee wala loo mu mën a arrière looyee yaa ngi nax sa yaay de <laughs> bomb bi sax bu explosé damay taxaw ndam rek ndam rek ndam kese. Sénégalais da gën a bëgg